baatu xibaar yàgg doon li ñu jagleel taskatu xibaar yi waaye seetlu bi mooy léegi ñu bëri dañuy prox ndoll ci bile liggéey ngir joxe ay xibaar yu dul dëgg ci anam yu dëppoowul ak ni ñu koy saytoo loole ndax seen i bëgg-bëgg bopp rek. ak xarala yu bees yi nit ñi dañuy gaawtu doo xool sax na euh, xibaar bi wër na yow naa na ko joxe rek après nga doog a wëri ndax baax na baaxul te bu fekkee ne xibaar bi nga joxe wërul musiba naaru laay bi muy am xamoo sax na muy toll. bi xarale yu bees yi ñëwee ba tey xibaar yooyee dafa gën a bëri. maanaam daal léegi njumtukaay yi am boo waxee loo xam ne wax nga ko pour yàq soo ko waxee amerique egg na Sénégal soo ko waxee Tambacounda egg na Honolulu loolu moo moo bees te loolu nag day yàq lu nu yàq dafa bëri lool day boole ay nit dafa jaxase ay askan dafa indi bodde ko ci biir xeet loolu nag moo tax ñu war ko xeex. ak élection présidentielle bu atum 2024 bi ñuy waajal Oxfam fas yéene taxaw temb ngir ñu xoolaat ci anam yi nga xam ne ni moom la ñuy joxe xibaar yi. ñu gën a soxal nag moom mooy ne que journaliste yi ñu mën a am jumtuwaay ak xam-xam ak pas-pas bu nga xamante ne lépp lu ñuy wasaare ak lépp lu ñuy jox population yi dafay nekk lu nga xamante ne lu leen amal njëriñ la lu leen di yokk la pas lu leen di wàññi dafay nekk lu nga xamante ne dafay ñëw dooleel Sénégal. dooleel démocratie Sénégal. ñu bëre ci askan wi rawatina ndaw ñi dañoo taamu léegi dem ci xarala yu bees yi ngir am xibaar waaye yenn ci xibaar yooye du doon dëkk moo tax it taskatu xibaar yi war a gën a mën a topp lu ñu leen jàngal te joxe ay xibaar yu wér te wóor.